ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk yi di suñu mbokk commerçant yi ñoom itam am na lu fi xewoon fa nii mooy li ñu tuddi zuxtikat demee ci Ibnu Asiir ñu wax ne zakka li aw dayni aw dayni aynan bi shart al hawli lil aslayni ixtikaar mooy koo xam ne day jël marchandise di ko denc ba mu seer mu ko génne loolu xam ngeen ne am na jafe-jafe rawatina rek lii amoon fan yi loolu nañ xam ne dëkk bi dëkk bu yërmande la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 sëriñ bi fu mu toll rek yërmaande nit ñi de xalaat ba soñoon ñëpp de ci jàmm ba soñoon fitna lii nit ñi nekk ci ndox mi ñëpp duñ ca jàmm ndax xam na ne metti na ci ñoom te nit ku war a jug dem ca marché ba wala mu jug jàngale ci alxuraan wala mu jug dem ci jàkk ña ba ci ilimaan Tuuba ji am na ay fan mënta xëy këram fajar ngir dox ci ay moon ngir dox kon loolu xam ngeen metti na loolu nag kon mën naa def taxawaay kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm xam naa lu ñàkk yu mu fàtte waaye wax ji dafa gudd te xam naa mel ni ñu sonn ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah